salaamaaleykum mbolo mi ma ngi len di nuyu. lay fay. ma ngi len di sant suñu mbokk journaliste ma ngi len di gërëm ñen suñu natango sénégalais man ma ngi tuddu mohamedou mustapha Fall man may porte parole collectif des travailleurs de l'entreprise entreprise chinoise Sinohydro entreprise bi liggéey ci projet de dessalement de l'eau de mer manam ndoxu geej bi nga xamanteni dañ koy transformer pour def ko ndoxu nan ci bir loolu ñom ñong ci and ak SONES ñom ñong ci and ak Nippon Koy ñi nga xamanteni ñom ñoo leen di contrôler ci bésu tay ji dama leen di wax ta xamal leen ni nit ku nekk dañ ka wara traiter joka ci nu mu yoon jox ka ay akam ak ay yelefam bis bi nga xamante ni suñu naataanga bobu di tuddu Alassane Bari wàññeeku won na ci chantier bi ci condition yo xamanteni mënon nañ ka éviter ndax lan parce que dispositif yi nga xamante ne dañ ko waroon teg pour sécurité bi yëpp kenn tegu ko bés boobu ba léegi dañoo nekk ci coono dañoo nekk ci njàqare ñoo ngi woote wallu ñoo ngi yuuxu jaar nañ ci yoon bu nekk waaye amuñu gain cause mbooloo mi maa ngi leen di xamal ni dañ ñuy dàq ci dàq bël ñoo ngi sàkku ndimbal ci sénégalais yi ñun ñoo ngi liggéey ci entreprise bi boobu ak léegi war na mat ñetti at wala ñeenti at sax boobu ba léegi masu ñoo am contrat barki démb lañ ñëw tegal ñu ay contrat ni nañ ko signé contrat yoo xamante ni soo ko signé mooy suba mën nañ laa dàq contrat yoo xamante ni sa indemnité yi nga fi am yëpp da nga koy perte contrat yoo xamante ni jaarul ci yoon. dëgg la ñoo ngi woo monsieur le président de la république monsieur Bassirou jommaay Faye

Je m'appelle Mohamedou Mustafa Fall. Je suis le représentant des travailleurs de l'entreprise chinoise Sinohydro qui est chargé de la mise en place et la pose des conduites dans le cadre du projet de dessalement de l'eau de mer sous la supervision et contrôle de la SONES et Nippon Koi. Chers journalistes, chers camarades et chers Sénégalais, nous vous remercions pour votre aimable présence d'aujourd'hui. En effet, Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous rappeler que chaque individu a le droit fondamental d'être traité avec dignité et équité. Depuis le décès d'Alassane Barry sur le chantier d'une manière catastrophique survenue à la date du 30 décembre 2023, dans des conditions qui pourraient être évitées si toutes les dispositions nécessaires liées à la sécurité étaient mises en place. Aujourd'hui, nous continuons à noter l'injustice et le manque de considération des Chinois. Nous notons des renvois sans préavis ni motif valable dans tous les corps de métier. Nous notons des chantages avec le travail des heures supplémentaires. Nous avons le non-suivi et le non-prise en charge des cas d'accident de travail sur le chantier. Je vous donne l'exemple d'un collègue topographe qui a eu un accident de chantier et à la date du 30 de ce mois et qui a eu à faire une opération ce 5 août de ce mois à 14h. Imaginez, il est entré en bloc à l'heure de 14h. Les Chinois sont venus pour payer les factures et les ordonnances à 21h. Leur motif et leur explication était que ils étaient en réunion. Ceci est dommage, ceci est à dénoncer travaillant dans l'entreprise depuis plus de trois ans pour le développement de notre pays. Nous n'avons jamais eu de contrat valable. Nous n'avons jamais eu de contrat valable qui réponde aux normes et exigences de la loi et code sénégalaise. Aujourd'hui, ils nous mettent sur la table des contrats de chantier qui sont censés se terminer dans moins de six mois et où on perd tous nos droits et intérêts. Nous sommes déterminés à nous battre et peu importe le prix à payer. nous faisons un appel solennel à toutes les autorités compétentes dans le domaine, à savoir son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le ministre du Travail, l'inspection du Travail, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Laissez-moi vous faire savoir qu'à partir d'aujourd'hui, nous décrétons une grève de 72 heures d'une validité illimitée tant qu'on n'aura pas gain de cause. Merci beaucoup de 1, j'ai suis mois le 10. là jusqu'au présent au contrat de travail Les de travail là. bari deux ans amuñu contrat un bulletin de salaire cotiser le du IPM du domaine du caisse sécurité sociale aussi nous avons un bon jour nous avons signé contrat nous le 31 bi ñu bu ci gannaaw ñu war leen ko cotiser lépp da ngeen koy perte bon bu ñu jógee ci loolu fekk envoyé woon nañ envoyé woon nañ leen benn syndicaliste bu nekk CSA ñu koy wax Assane ba mu fa demee andil nañu protocole d'accord ne juboon nañ ci ñu defal ñu ay bulletin de salaire ak ay contrat de travail prime de transport yi ñu ne ñu ngi dem négocier ak seeni patron bi ñu toogee leen déglu trois mois réagiruñ ci lañ xam ne ñii dañu bëgg di tette jàppee ñu comme xale ne nañ ñu jéem naxtaan léegi chantier bi jeex ci la ñu toog xaar leen ba ñu andi contrat yi ñu xool ki nga xam ne moo ñu andil contrat yi respecté wuñu ba mu dikkee dafa andi contrat yi boo ñëwee ba koo lire danaan la avant ngay lire da ngay ba pare ça veut dire moom li mu nekk tegew ci yoon te code du travail mu ne may nañ la nga téye contrat bi vingt au moins quarante huit heures. Mhm. pour nga xool lan moo ci nekk bu fekkee jàng nga wala jàngoo yëpp am nga droit boobu mais moom nanguwu la ko may. loolu moom moo waral. bi gars yi xoolee xam ne accéléré nañ affaire yi ne daar daar dañu war a signer contrat yi ñu ne nag il est temps pour ñu taxaw régler suñu problème parce que du ñu ñoo xam ne dañ lay liggéeyal deux ans trois ans sans contrat nga taxaw ne ñu tey ngay signer contrat nga koy perte te chinois yëpp noonu la ñuy doxee ah. lii ber bi la foofu laa ko amee. bii certificat de travail bu autoroute à péage Ila Touba la foofu laa ko amee maa ngi de travail bu enel sin diggante Daara ak Louga bon kon yàgg nañ ci suñu waa xam nañ li ñuy liggéey li ñu jàppee suñu ouvrier yi dañuy ñëw lu dix ouvrier war a liggéey dañuy koy présenté ci kanamu boos bu mag bi ne dix la ñu jël mais finalement dañuy dàq quatre yi wala ñu dàq cinq yi cinq yi bu ñu leen dàqee duñu éliminer seen fiche pointage dañ koy xam ne mooy sa employeur moo koy bon léegi soo xoolee lu diis war a liggéey lu ci ëpp six personnes moo koy liggéey wala ay cinq personnes yooyu nag man li ma ko jàppee mooy man boo fi nekkee ba léegi musuma gis inspection du travail ni contrôleur musuma leen gis bu fekkee ni ngi ñëw tamit gisuma leen amul fii man chauffeur camion la bon ñu ngi amee di wax naan nit ñi dugg ci gaal yi bala ngay wutal ki amul xëy xëy da ngay xool ñi am xëy nga xool seenum xëy nan la demee ba pare ñii jot a xëy seenum xëy réglé wut

pour wax ko suñu jàngat. ba ma demee defal nañ ma décharge. amoon nañ syndicaliste. amoon nañ syndicaliste bu tudd Assane Ndiaye. mais dañu ko xool ba xam ne trois mois yoo xam ne puusul paasul réagirul loolu moo tax ñu jógal suñu bopp ne nañ dem fajal suñu bopp comme man dem naa ministère du travail bañ defal ma décharge xaar nañ lu yàgg déggu ñu recevoir. Assane ñu ngi koy déglu mais lam ñu waxoon première ba andil ñu protocole d'accord moo gën a siiree li muy waxaat ñu xam ne kon kii ay waxam avancé wut loolu moo waral ñu taxaw pour régler suñu problème. Euh, gannaaw ñett fan yi nga xam ne fas yéene ko banque seen loxo bu ngeen ci amul solution lan mooy euh, étape bi nga xam ne. moom ñu ngi xaar ba nga xamante ne si lii ñuy régler sotti na ñu doog a commencé liggéey mais feek sottiwul pare wuñ pour liggéey. Hmm. baax na merci beaucoup